asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw mi ngi noonu ci barakaatu boobu noonu si la ñuy daal di masawu nag sénégalais yi masawu adduna monde entier wallaay wallaay ndax sëy dañoo am mm. perte bu rëy dëgg la muy sang bu baax ñuy ñaan suñu borom yàlla defal ka jàmm yàlla na ko ay leeram te njaboot gi mu fi bàyyi suñu borom teg ci loxo ak taalibe yi ah liggéey bi itamit jërëjëf léegi mi ngi noonu ah mi ngi noonu léegi nag sëy xam nga jamono ji fi ñu toll nii mhm. yàlla kenn la dëgg la te yàlla moo sàkkru yi dëgg la ah, di di indi ak di yóbbu wallaahi la asim ah, di indi di yóbbu wallaahi sëy dëj yi li fi am day dépassé dëj yi dafa am yoo xam ne day am fo ah, man yow yow sëy nga gis jigéen ña ne fa naan waa te li ma gën a jaaxal jibi sëy lak bi ngay dee rek bi lay génnee kër gi tey jibi c'est exemple boo deewoon tey bis bi nga dee heure bi nga dee bi lay yóbbu ca morgue ba rek sa la yàgg sa dépense ay ànd ñu tàmbali dem ca ca ca daral ga nag yi dàqe xale jigéen ñi tàmbali muuraay <laughs> daal di teggi pay li gën a garaaw <laughs> mooy mooy mooy mooy nit nit uh-huh. bala ñu lay suul dan la dañu war a xool ba xam ndégam uh-huh. dee nga wala deewoo maanaam gaaw a gi ak yàkkamti gi ni yàkkamti pasar pasaree sa alal. mais ñi fi suul te loolu ka ñoo bari sax. Eh, Sénégal gii ñu nekk nii problème bi mooy xamal la mooy wax ji mooy bu fekkee yow par exemple. Euh, loolu nag ñi ñàkk ñoo ci ëpp wërsëg ndax seen ay mbir sax mën na xaw yéex. parce que non attends parce que gis nga boo amul lay euh, pour ñu suuli la day xaw yéex mais bu fekkee da nga am nga xaw deedeelu tuuti rek dañuy yéenu yóbbu dégg géwél ba moom woo na ay mbokkam yi nga xamante ni ñoo war a togg ak yooyu yëpp togg bi yëpp dañ koy xëccoo dégg nga marché la mais xam nga lu ma gën a jaaxal ci dëj yi léegi sëy mhm. dëj yi léegi dañu ko def sous forme de dafa mel ni léegi ay concours la ah waaw ku dàqale dëj génn ci dëj hôtesse waaw waaw ku dàqale dëj ah man réew mee toll kaay wax la nag Touré wuy man nit doo woona say nawle ci dëj nag di def yu yu yu kii da ngay wut say hôtesse solal kii dëj day solu ba di rafet jasinaire bu weex tàll lan koy ñawal ci bis bi déggoo ma de range les saisies accaparer code bi ku la gën a bare leen nit kooku la deuxième gën a valable. léegi nag da nga naan ku la ëpp nit kookoo dem tey. waaw waaw waaw léegi wax ci. waaw. Djiby Seye Deji léegi da ngay dem ba je ne suis pas compris au total les les daal ak les détails. del éviter nag tubaab bi booy wax affaire. Djiby Seye da ngay del wax wolof. non non déglu rek li may wax ni parce que y a des intellectuels te affaire bi tout le monde la la concerne. tout à fait innocent day dee. mais nga wax ak waa ah, mi ci wolof. Euh, intellectuel day dee. waaw dëgg la bureaucrate ko noonu. jibisee ceebu yàpp est-ce que xam nga léegi utiliser tur benn directeur utiliser tur benn directeur dama lay jox benn anecdote benn directeur yaay ji dafa gaañu ñu muy jooy kenn nak donc seen directeur bàyyi jooy leen mais intellectuel <laughs> intellectuel warul jooy ndeyam wax na dëgg pour ñoom intellectuel nii rek la war a def xool c'est ma maman c'est ma maman xam nga lu ma bëgg nit ñi xam ko. dëgg ko kaay tey am koy suul. mais pourquoi ma maman on l'enterre. dans la dans la yow sa maam ak sa maman. ci maam bi la dent affaire yooyu commencé ñu mais tamit mais nii. non am na koo si xam moom da doon demandé ni est-ce que parce que mosut a dem entraînement. waaw waaw muy est-ce que est-ce que. du am ay toiles yu ñuy yu ñuy jiital. ki wéy il foo ñu wut ay papier toile. est-ce que est-ce que que c'est ah. bactéries yi. waaw non mais ah, yenn des fois tamit nag yenn toiles yi ñu ngi ëppal ngeen de. non fi ñu suul baadoolo bi foofu la ñuy suul sa ndey ba pare sëy sëy sëy dëji léegi am na ñoo xam dañuy woowee ay traiteur de. traag la traiteur yi toggul si dëji dafa am. tracteur. waaye traiteur yi xam nga ñi may wax. mooy ñi toog ceeb yàpp bi di. ay yéen traiteur lay wax. di ko booleeg vermicelle. waaye traiteur ak traiteur ñu si ñoom la am na si ñoo xam ni. dañ naan seen dëju yaay wala seen dëju papa kenn du leen ko toggoon ndax dañuy sàcc yàpp des fois da ngay yàpp sax am na ci dëkk. waaye yow bëri na ay traiteurs yoo xam da nga maa ngi nii ci dëkk da ngay ba pare sëy ba pare sëy bu ñu jëlee néeg suuli ay waay suul bi sëy Almeria oh. Almeria sëy am na ñoo xam ne ah y'a pas de temps nan lay wax amuñu temps ay waay et puis xam na eh foo dégg ñun la na amuñu tàng baadoola la ñuy jël buñ ko tegee ci buntu kàmb bi da ngay dégg paa yi di yuuxu gaaw leen ci li ngeen di def ndax fi mu nekk nii lii sax dootul yoon kii waaye bu dee ndey saanam borom xaalis la foo toll dégg may leen ma rek ma am kàddu yu ndaw ñu ma ci sànni kii ñu suul tey ji kii tëdd tey ji lu ne defal na ma ko daal ko de waaw mais xamal Touré beneen problème bi xam mooy ban mës dégg rek ñu ni ku ko ameel na jege si kenn jege si moom sëy moom boo déggee ku mu amee rek ku ko ameel ñi ko am na si ñoo xam ñoom boo dee mooy balaa ko noonu bor ba ba pare sëy li ma gën a jaaxal moo di sangum néew bi eh kaay ma ah. eh sëy bis bu ma deewee eh. sëy bis boo deewee wala xam naa ah, non non non yaa ma mag xam nga yaa ma mag en général mais yaa tey jii nii bu nit ki deewee sa néew waaw na nga ko garder ci sa xool ko gëstu néew bi duggal ak moom ci biir ah ci biir sangukaay yi ndax dañuy jaay lamin ah mu yéen yow ñi ñi di dagg cëru néew yi di leen jaay ay ay sangaayu néew bi ñi ciy toppati naan la wëteen bi nga gis ñoo xam ne parfum bi la ñuy soxla nga gis ñoo xam ne saabu bi la ñuy soxla gis nga moo amee sa néew mu faatu muy sa waajur bu ñu koy sang bu da ngeen war a sax jàngee sang néew dëgg la nit sax da war a xam dara nag ci sa diine dëgg la de waaye jël sa néew tekk ci loxo ay nit yoo. xamul mais gars yi dañu civilisé am na si ñoo xam ne ñàmpeeg saabu dong lañ koy sotti ragg ko. aywaay barke tamit daanu koy yeew. Ah, falaa ko benn farata wala oh, falaa falaa am na néew yu nu suul yu bare yoo xamee ni. seetunu noonu nañ leen jébbale. ay waa ji yow da ngay gasal néew bi daata ñuy dugal néew bi sax. néew bi reposé gul à terre xam nga repose il est reposé la ñuy wax. waaw repose il s'est reposé. il n'est pas reposé sax finissement ñu tàmbali lu acca koppati jibi bi acca lu néew bi ay waay lu kii waay kii ci bi ñu koy paasante mais loolu pour lan mais mais mais loolu pour lan képp koo xam ne yaa ngi dund ci àdduna wutal àndandoo yoo xam ni ah bis boo dee ñu bàyyi la xel waaye fekk ay ay ay àndandoo yoo xamee ah, am na si ñoo xam ne mais ah mais na àdduna moo tëddee ay xaritu caméraman boo dee di nga siiw ndax ñoom dañ lay caméra boo amee ay xaritu fecc kat sa dëkk dina bëri wet wet yi ak kii taas ma taat génn taaj. ak am na si ñoo xam ni. ay ñaan yoo xam image de fecc kat bu lay ñaanal lu mu lay ñaanal ay rosaxin tas ku tar tar ku tar gis gis. waaw mais yooyu tamit mais yooyu timit ah moo tax xam nga yooyu timit xam nga yooyu timit mais bu dee jànkatu alxuraan ah. waaw sëy te ñëwut ay xaritu jànk bu dee théâtre kat dina nag fa lay nekk naan découpé plan large naan ndeysaan ak mu mënoon découpage buñ ko mësaan a dégg et puis sëy eh, eh, sëy jàngu alxuraan waay sëy dafa nag waxuma eh bul ma dugal de waxuma comédien kon yow Tapha Touré yaa ko fi ah, ah. yow en tant que ah, di yàq deru comédien dégg na la loolu solennel ma <laughs> ñi nga xamante ne ñoo ŋànk woo président Arcos di woo président eh. <laughs> yaa ni comédien jàngu sëy li ma wax dafa leer dama ni kenn ku nekke ca la ngay yëngu. mais bi yëngu na waaw bu dee mbër làmb la semaine bi yëngu na non semaine bi tàng na ji comédien dem na ministre de na homme d'état dem na sëriñ dem na waykat a fi des te benn waykat rek la ñu am yaakaar ni ban waykat la kii waajal xew-xew nga ci bitim réew eh. dañ koy dagg de Ablaye Wade la mu waxoon ba kii bëgg gëm de waaw Wade moom kaasam moom tamit moom moom wax na dëgg yàlla rek yàlla rek a bari doole <laughs> nee bu ma kenn waxati yaa bari doole. déedéet yàlla rek bari doole. wax na dëgg ak wax a mën lii lii. façon de waay kat yaakaar ni moo war a mën a dem parce que comme ñun joxe nañu. ñun joxe nañu suñu sarax. waaw joxe nañu saraxum de dafa dem rek. a ah. dafa dem Touré wax ma fi waxu sarax de. ah li nga waxee kat dafa mel ne. ah li nga waxee kat dafa mel. Euh, euh, comédien dem man de xaw ma koy dem rek dafa am liste. comédien bu mag dem na. Euh, homme d'état bu mag dem na. ah man de yàlla bu kenn euh, dem macha allahu rabbi ban waykat moo war a dem. yàlla bu ma ko xam man man de sëy xooluma koy dem ak koy dikk de. bu waykat demul rek comédien dem. gaskatu bàmmeel ba tàllaloon ban euh, gasukaayam peelam. waaw almeeri wéet. ndeysaan mu dóor tax bantam. peelam la nit tel dóor. ndeysaan ñu oh, yi ñëw waaye tey dara doxul. oh. ñu jiita laay laay mu tourné ni nii mais kii du pa kii kii du ngañ waat tourné xoolaa ba si ni mais kii jaaji la. ndeysaan ba si ni mais kii Abdou Faye la. ndeysaan ñu ñëw ni ka sa yaay da leen lay indil. oh moo tax kenn du yéene nit dee. allo hello hello. waa allo. yeah yeah yeah allo douze. waa allo douze la kay. yeah my name is uh, Kofi Alami Nyanko Tigi Tigi Badoba. Kofi leen mel na moo Kofi Alami Nyanko Tigi Tigi Badoba is my name. lan yow. ama keneen da nga juum de da nga juum si woote bi de. yow ku baax yow na nga def juum déedéet déedéet pas juum defuma juum de. lan la loo bëgg. man ganayen la. waaw ah, ganayen waaw léegi. ba Sénégal la nekk Yoff. wa waaw waaw mais j'ai entendu l'émission sur les les les les morts les décès. waaw mais est-ce que vous connaissez pas des femmes qui qui qui pleurent qui qui pleurent. ah ay jooykatu néew ngay Yeah, my father is dead. Je, je veux, je veux. Mon père est mort. Je veux, je, je veux des femmes qui pleurent. Je, je les paye de l'argent, ils pleurent pour moi. nee na waaw ya yaa naa pas. yaa naa pas. man de xaw ma fi xaw ma fi ay jigéen yoo xam dañuy regroupé wu ñu est-ce que waxul lawbe yi. ok merci merci. est-ce que waxul ay lawbe la bëgg. lawbe yi ñooy def loolu de d'habitude. am na ñoo xam ni barke yonent bi bu seen mbokk dee bu ñuy départ ba ba ñuy egg ci lu leen neex rek la ñuy ne. waaye bu leen leeree ni baas baa ngi nii ñoo xataraay. xaw man ban ban ci laa muy ba pare naan ba pare naan may leen ma naan. dañuy sonn ma ne ko danga mar. léegi nit ñi mi satunu dee. bu njëkk da nga naan gis ñu la koñ yi diwoo fi gaañu. une semaine doo fa jaar. da ngay tegg koñ boobu. bu ne la diw dee na ci néeg bi. dootoo fanaan ca néeg ba ah. mais léegi diw daan mooy dee ca néeg ba ñi xëccoo néeg ba ca biir kër waa kër ga di eh, xeex naan kaas naan waaw ñi ngi nii ñi ñi ngi jóge ba ba jubel ñëw ay yi nii leen rombe naa lii lan la naan ah ceeb yi ceeb yi moom yàpp dëkkandoo yi nag ñi naan yàpp yi moom kenn dootul togg <laughs> dëkkandoo ku ne indi sa bool. na la yekkal ma ba muy dund siisul woon. waaw ay waay te yow ñii deelee. xanaa nga war leen dimbali. lu dul di indi sa bool. Eh. di tëb di yóbbu. lii dafay ñaaw. ak xale yu ndaw yi dem si ay dëj. waaw waaw waaw. surtout loolu. waaw xale yu juddoogul ay xale parental ñu naan seen maama deewa ñu jiital xale yu nekk sa almérie di dëggate néew yi. ay waay di jogg ci kaw néew yi laa la wax dañuy dox ci kaw néew yi. encore ngeen une fois bàyyi leen ay xale yu ndaw yi ngeen yóbbu si ay almer ak timi jël jiital yaay xale bi ki sa papa gaañu exemple xale yi jiit la ànd ak seen yaay seen ñaari tànta xool jege jege ñëw. di sentimental almer yi nee nee néew xool. ak ñu naan la baalu ji ka ay waay ji waaye ku dee nga tooñ ko xeex ak moom xëccoo ak moom. sa kër lay ak gën a bañ sama àdduna. nee ba nga ñëw fekk feebar ku tëdd feebar soxla ordonnance kenn lijjantiwu ko. yàlla bu mu tëdd fa mu tëdd ndeysaan bëri na ñoo xamante ni deewaale nañoo góom bu tooy. surtout nag ñiy deewee bitim réew. ay yooyu ñooñu tamit. ay millions. ay millions. la ñuy fere pour ñu indi leen Sénégal. 7 million dégg naa bu dee Italie gii la. léegi nag bu nu say mbokk dajalee 7 millions. ay waay yàlla boo nekkoon foofu noo non employé nga xam na nga fa nekkoon ni nëbb sa bopp liggéeyoo nga dee. say mbokk dajale 7 millions cotisation ak. waa bitim réew yow moom bul xalaat eh, bul xalaat sax ñaar ñi def aw yaay dañ koy wax dañ koy indi ba Sénégal xam nga dañuy xam nga financé nañ lépp dañ koy suur rek yemale foofu ñu commencé naan ah moom di dëjaluñ ko. Eh, appayage bi boo ci eh, eh. ba Sénégal beneen daama joxaat la beneen. appayage bi bu la ci oto mbëkkee nga dee. saa mbokk pour ñu jot sa koor dañuy fay. appayage ah, ban bii. xaw ma yëg nga ko wala yëgoo ko. sëñ bi su ma yëg la. laay laay la dangay fay pour sa. déedéet ay. Eh! da ngay fay xaw ma 37 mille xaw ma 35 boo ko fayul. doo jot ci néew bi apayage ah waaye nag wuy ma bu fekkee sëwoon nga woon boo xamante ni yow kër ga lekk rek nga fa nekkee woon dañuy fay 37 mille ba pare xoolal. ñaari nit a lay gàddu sa dog bu dalee baax na boo diree koo baax na ba pare bu lay suñ ñetti loolu laa wax di benn nan lay defal parce que lay xaaree. activité naan sama sama papa dama bëggoon sama yaay. parfum bu gën a neex. yenn patron yi waaw. les plus parfum pour ñoom parfum bi lu mu gën a neex rek mu gën a dugg. à kii 44 bi la ñuy jënd. et puis huit heures ngay dee neuf heures ñu suul la pour lan ci leen seen temps xat alméer yi may gis alméer yu xat la da ngeen ne porte nekkul may leen nit ñi ñu jël temps dugalante génne leen te. nank man ma man maa ngi ñaan. ay waay daf leen nu naan ci allo douze bi maa ngi loolu genre testament la. sama genre samat maa ngi leen kay ñaan jël leen seen temps bu ngeen may suul ñaanal leen mooy yàlla yàlla jéggal ma ndax loolu rek laa am ci yéen jël leen seen temps benn yoon boobu la ñuy mujj gisante te ku mujj ci almeer bu génnee tànkam rek mooy ñett. loolu ci yàlla yërëm. amiin yaa rabbi. te ngeen di wut ay xaritu jàngkatu alxuraan baax na de. man de am naa xarit yu bare. jàngkatu alxuraan baax na de. waaw ah, mi ngi doon kon jërëjëf yii. ñii ñii ma gis. ñii ma gis nii soobis bi fii la ñuy toog daal la xoolal. am na bi am na cinquante ndeysaan xoolal am na député boobu ndeysaan am na cadre boo xam bi mu gaañoo le jour bi ñuy monté assemblée nationale la décédé. ah eh boo fa bëggee dégg-dëgg. eh bi nu waxee si moom une et eh, li eh, si des xuloo la ñu eggale pare nañ ci kee naan ko eh loi 466 bi ma leen pourtant ki ngeen ki ni suul noonu bu si kanam yi tuuti si liste bi la bokkoon de pare nañ si kon yàlla na yàlla defal jàmm doolu yàlla yokk jàmm mais affaire bi garaaw naa mais <laughs> ñee ngay e kaas kee naan Khalifa Sall ko war a kee te am na ku dee ah, fàtte moo tax gis nga yàlla na yàlla defal jàmm amiin man Viviane maa ngi seetaan télésénégal point com